waaleykum salaam wa rahmatulah Babacar maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Cheikh Omar sa caméraman ak internet yu Dakar Actu yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu famille làmb di santaat yàlla bu baax a baax a baax macha allah di julli ci sangu-sang yi di sant suñuy way jot di ñaanal way dawle yi ñëpp ñuy jiitu yàlla suñu borom yeesal yërmande ci seen kaw di am contentement nag ci jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo ak yow. am na solo yaakaar naa ne fi ngeen jóge démb bés bu ngeen yàgg waaj la bés bu tax yàggoon a taxaw la ngeen waaj ko ay weer ba yàlla dogal dem ngeen bëree ko ñàkk ko combat Boy Niang ak Modou Lo euh, bi muy taxawee amoon na wax am na ci polémique parce que na mu taxawee la ak ba muy taxaw ci li Modou nekkoon ak Ama ma waroon a bëri ak Modou yooyu yëpp am na ci bala ma dugg ak yow si combat bi nga dikkal ma ci loolu. waaw waaw mais Babacar xam nga làmb moom. ci coow lay tàmbalee ci coow lay jeexee làmb làmb ak coow ñoo ànd yooyu moom amul problème du dëgg combat bi nag jël nañ ko xaw na diire waaj nañ ko comme niñ ko comme niñ daan waaja wala lu raw sax niñ daan waajee suñu ay yeneen combat waaw ñëw yàlla suñu boroom nag ñi nga xam ne mooy dernière décision bi yàlla moo ñu xañ waaw am na solo mais ci biir xañ boobu booy Niang boo xam ne bi mu daanee Balla gay at mi dellu si wala weer wa dellu si mu bëri ci ak Modou ba tey combat royal mais adversaire bi mu doon bëreel démb kànji su ma la laajee ne ndax Boy Niang étudier woon na Modou Lo wala yéen ñi ko yor toog ngeen daan étudier Modou Lo fort yi Modou Lo ay faiblesse am lu ñuy moyu ci moom ak lu ñuy sóobu ci moom loo may tontu. Modou Lo man bi bi combat bi commencé ba tey maa ngi koy nuyu di ko félicité bu baax a baax baax ak waa parcelle yëpp man Modou dama ko jox wàccuwaayam ba ñëpp dem mujj yaaxaane dañ koo ragal. waaw parce que champion la man man j'ai toujours été constant et cohérent sama ay propos mooy champion la ndaanaan la parce que moo ko indi fii mu yegg si. utiliser mm-hmm. nañ ko bu baax a baax a baax. Mm-hmm. booy ñang li ko Modou Lo rawee ci làmb bëriwul. kon mm-hmm. booy ñang aussi xam na Modou Lo bu baax a baax a baax étudier nañ ko. mais bisu daanu moo nekkul bisu daan loolu moo ci nekk. soo waree ñàkk soo waree ñàkk da ngay ñàkk mais on a très bien étudié Modou te làmb ji booy ñaa daf ko préparé sérieusement waaw man je me dis ne làmbam ji sax la gën a préparé que contre Balla hmm? billaay wallaay taalaay ci la gën a daj ay coono wallaahi hmm. waaw trop làmb ji làmb ji làmb ji daf ko fonkoon ne daf ko fonkoon trop sax. waaw mais nag yàlla suñu borom mooy maye mooy xañ. mais soo daf ko fonkoon mais adversaire bi parce que dama seetlu ci signature contrat yi Boy Niang boo xam ne bi ñu wax ak Modou. maanaam day mel ni ku koy acculé mais dama gis benn Boy Niang boo xam ne si jàngat bi ma def dama doon gis ci moom genre nervosité maanaam mer ko xam ne buy wax day wax ngay sentir ni dafa mel ni daal ku waaw kuy waxi dënn loolu tamit est-ce que nekkul kon ay erreur yu nga xam ne def na ko ci biir combat bi ba mu topp ko ba mu ñàkk combat bi wala non non Boy xam nga c'est que nit ki boo ko xamee Boy Niang noonu la mel Boy Niang noonu la mel Boy Niang des am na ci loo xamante nii su koy wax da ngay jàpp ne dafa nerveuse wala yooyu en plus xam nga làmb Babacar ak face to face il faut ñu am notion xam ne mbëri aussi il faut des fois xam nga ñuy communique di waaw di waxante di jaayi làmb quoi parce que soo ñëwee ne tekk gars yi ñu ne noo ñii seen làmb ji xam nga dañuy laa boo waxee gars yi ñu ne noo dafa mer warul woon communiquer nii làmb ak yooyu ñoo ànd dafa fekk rek juste que ne soo waree daanu rek da ngay daanu booy ñaar face to face yi mu def ax Balla Gaye defu ko ak mooduloo Lo ko ak Modou Lo premier face to face bi ñëpp dañ ne noo booy Niang dafa mer dugal na Balla Gaye ci combat bi après dañu ñëw après baala dafa waroon daanu booy Niang daan ko moo xew démb Boy Niang dafa waroon daanu démb dafa daanu ci bëre mais face to face bi man fi ñuy wax wala ñenn ñi fi ñuy waxe mooy le fait que bon xam nga nit kii di nga wax jëngal sa signature ba mu yëngatu mais euh, bu gars yi wax nervosité bi yow comme lañ ko qualifié dañ la koy nangul mais est-ce que tamit adversaire yi benn yaatut Balla ak Modou xam nga ñaari bokkuñu booy ñan fa mu yeggoon ak Balla xam nga du fa mën a yegg ak Modou ci sama jàngat parce que muudu dafa nekk adversaire boo xam ne yaakaar naa wax ji dafa mel ni bëriwul dina tontu nag. waa mais xam nga soo gisee ma wax la loolu mooy xam nga booy Niang démb bëriwul nervosité ci làmb ji. bëriwul ko waaw loolu moo tax ma ne la signature bi ak combat bi du benn quoi su fekkee dana woon ne nervosité lay indi mooy arbitre danaan prix mu naaw ci kaw Modou mais démb Boy Niang làmb ji mais daf ko ñëw bëre teg ko ci yoon taxaw. am round d'observation déplacement ñu xeex après bëre ci biir bëre mais Modou juum loo ko ci bëre daan ko waaw mais lamb démb ji amul nervosité indiwut nervosité yow tamit Boy Niang bien que moom waxuma ñu ànd ak Boy Niang mais Boy xam na nu mu a ñëwee ci lamb ñëwut ak nervosité ñëwut hmm, hmm, hmm, am na solo mais ba max bi am avant parce que man damay delluwaat ci li ci ginnaaw parce que yooyu yëpp dafay <laughs> kañ duñ ci mën a ñàkk a wax ba maxante bi amoon 2S loolu tamit est-ce que deful effet ci combat bi. wallaahi defu ci dara. billaay wallaahi taalaay wallaahi defu ci dara. barke alxuraan defu ci dara yooyu yëpp ay signature la affaire yooyu du dara billaahi da lu doon neexal làmb la rek. te euh, des fois am yoo xamante ni day ñëw ci signature c'est spontané maanaam mooy buy ñëw kenn du ko programmé. bien sûr ci làmb noonu la de mais wallaahi defu ci benn effet làmb ji da booy ñaar daf ko préparé man man man dëgg-dëgg sax man dama làmb ji la gënoon préparer sax ko contre Balla. non si làmb ji daf ci daj ay coono yu méttee méttee méttee méttee métti. mais xam nga tey boo ma tënkee ci war a ñàkk ñàkk loolu am na mais tamit il fallait que ñu jàngat pour man yéen ñi ko yor rawatina yow mi nga xam ne ci kilifaam nga bokk erreur bi mu def ci biir combat bi kon ba ñàkk ban erreur la def parce que gis nañ xeex bu bari bu bu ñu xeex donte kuy nag mm, mu ngi ñëw mais ku ne yaa ngi moytu say ku morom maanaam ban erreur la Boy Niang commettre ci combat bi ba Modou yegg ko foofu ba mbaar ko delloo ko noonu mu daanu. waaw ci man li ma jàpp xam nga nag euh, léeg-léeg man day am yoo xamante ni peut-être dinaa ko mën di wax ci presse am yoo xamante ni maanaam day nekk waxtaanu biir néeg mais li ma ci xaw a mën a wax publiquement ci heure ci li ma jàpp ne man ci sama xam-xam bu gàtt mooy bi muy jëli tànk bi quoi dafa daf ko sori. Hmm, dafa daf ko xaw a yóotu quoi. kon ni mu jëlee tànk bi moo baaxul. ci li ma jàngat. ci bi jàngat bi man waaw. man jël bi ko waa jël bi jël bi moo baaxul. est-ce que foofu nekkul ne xeex bi est-ce que Modou dóoru ko fa coup boo tax tax mu wàcc nga yaakaar loolu wala. mais moo aussi jël na coup Boy Niang. Modou jël na coup. dañoo xeex ñoom ñaar après Boy Niang bi muy dem nag peut-être xam naa ni mu gisee woon tànk bi ak ko Modou teg ci vision man sama xalaat quoi man. waa ci ni ma gisee voilà waa ci ni ma gisee mooy li mu natt moo soo waree daanu rek mais barke sëñ Bamba ndaanaan la de. loolu xax waxatee su ko. ndaanaan la naan ku lu fadri. ndaanaan la mais waaw mais soo waree daanu da ngay daanu rek. Mm-hmm. mais am na ñoo xam tamit jàpp nañ ne bon combat Boy Niang ak Modou Lo Boy Niang dafa waroon ñëw sës Modou xeex ak moom xeex bu gaaw jàppi bëri ji jàppal bàyyil maanaam bañ ko may temps bu bëri est-ce que benn benn ak Modou bi tamit bokkul ci erreur yi daan Boy Niang. waaw léeg-léeg nag xam nga nit moom kenn ku ci nekk ak si appréciation xam nga làmb su taxawee moom kenn ku ci nekk am nga ci waaw noo koy xalaatee ak noo koy gisee quoi mais xam nga acteur bi ci boppam ak ñi nga xamante ni ñoo ko encadré techniquement ak tactiquement. ñoom aussi xam nga dañuy du ñu topp rek xalaatu nit ñi dañuy xool étudier xool li nga xamante ni njortu nañ ne lii buñ ko defee war nañ cee mën a am ndam ñu def ko mais loolu la ñu étudier rek waa kenn ku ci nekk ak sa gis-gis rek. am na solo par rapport ak adversaire bi ngeen ko seexaloon tey moom mooy loolu quoi mais nag dañ lay comprendre dañuy comprendre parce que bon comme ñoom ni ñu encadré mbër rek ñoom am na loo xam ne duñ duñ ci duñ ci sori xanaa bu ñu wéetee mais par rapport ak bi adversaire bi démb. Euh, donte xam naa loolu ngay tontuwaat rek mais lu mu la ëppalee démb loolu tam bëgg naa lan la la ëppalee ci bis bi démb. ci biir làmb ji. waaw Modou Lo lu mu booy naa ci biir làmb ji honnêtement gisuma ko. Hmm. non gisuma ko wallaahi see xama man nag damaa bëgg nit ñi ñu xaw a bàyyi xel di ma may dara mooy man soo ma xoolee ci booy ñang danga may mere un deuxièmement mooy hmm. bala maa gëm ne kenn ko man danga koy daan ba pare parce que dama non dama ko xam man man mbëru làmb ak joueuru football man kenn mënuma ci nax man ku ma xool ci moom mere ma bala maa gëm ne yaa man danga koy daan ba pare loo koy dig bàyyal ba def ko ko ba pare parce que li ñu ànd mu wan ma ko la ak ni ma ko xamee làmb ji li may indi sànq ba tey naan la soo waree ñàkk da ngay ñàkk damay dégg léeg-léeg gars yi di ko wax da ngeen ko tegoon ci mystique kuy bëre ñaan lu ñun boog mais li ñu doon def contre Balla Gaye boo seetloo loolu la ñu def démb contre Modou Lo mais yàlla weddi dañu tardé bien vrai que dañu tardé ci làmb ji mais contre Balla dañu tardé. dañu tardé contre dañu tardé démb dañ ne Modou dafa pare lu yàgg booy naa dafa jël temps ci mystique bi làmb Balla bu daaw bi 22h lañ ko sifflé démb avant 22h ñibbi nañ làmb noonu la làmb boo ci nekkee. man boog man sama idéologie mooy da ngay daan tey suba ñu daan la ginnaaw suba nga mat si nii xam nga li si ëpp solo mooy il faut savoir gañee ci humilité et perdre dans la dignité parce que yàlla suñu borom mi lay may di xañ ki ngay nekkal bu ëllëgee moo lay xañ yow may keneen gëm-gëm boobu man laa am boog ci làmb moo tax déception dina am parce que làmb foo la mais ku daanu rus mm-hmm. mais am na foo xamante ni man duma fa yóbbu parce que waaw parce que man seeda déedéet non du ma am ba parce que seedaan naa champion yu bëri ñu daanu yàgg naa se non du ma ne yàgg naa sax mais léegi ma xaw a kii tuuti ci làmb comprendre nga moo tax man sama conviction mooy lu man di am alhamdulilah moo tax man am na yenn wax yoo xamante ni man gëw ma ko ci làmb non man li ma gëm ci làmb mooy da ngay entraîner ba am doole ànd ak ñi nga war a àndal ñaan lu dem def li nga war a def après suñ borom lu mu dogal noonu la mais gëw ay Cheikh Omar ay Babacar ay non man gëw ma affaire yooyu Hmm. waa parce que yàlla rek mooy maye mooy xañee ku doon may sa bopp doo jeexal am na loo xamante ni su ma ko mënoon sama bopp dépassé naa fi kon yàlla rek moo fi nekk subhaana wa taala am na solo tardement yooyu nga wax def ngeen ko daaw mu jig leen ren ngeen def ko mu jiga di leen ay tegtal la wala lan la non du tegtal lu ko waral te ngeen dëkk ci côté arène bi du tegtal peut-être li ñuy def maanaam peut-être gaa ñi nag di nga wax nag moom ci côté arène bi ngeen dëkk yéen yéen a ngi tout près arène bu ngeen doxee ñëw Euh, Balla Gaye jóge way daaw Modou Lo jóge Parcelles ren jiitu leen ci arène bi loolu tamit xanaa kay dañ leen koo digtal wala lan la. non man na bañ a nekk tegtal sax peut être maanaam yi ñuy def mooy bari ba nga xamante ni xam nga li wala heure bi nga bëgg di pare doo ko mën di pare loolu la rek mais du ay tegtal wala yooyu waaw wala da ngeen nekk kon Pikine. <laughs> non ah fa lañ départ kay. contre Balla Pikine ngeen départ. waaw ah, ak contre Modou aussi. contre Modou. contre Modou c'est sûr que Pikine ngeen départ démb. ah si de si de ba. foofu la gaa yi jóge mais man daa mel nekku nga neen Dakar ah, kon yow xam nga ne nekkuñ ñoon Dakar <laughs> nekku ngeen Dakar de ci regroupement bi waaw waaw non démb moom combat bi wax dëgg yàlla waajee wuñ ko Pikine ko combat bi waajee wuñ ko Pikine démb comprendre nga déparé wuñ Pikine après bon parce que peut-être ji moo laajoon loolu làmb ji fi mu tolloon làmb ji tranquillité bi nga ciy bëgg waa tranquillité bi nga ciy bëgg ak ni nga ko war a waajee waaw dafa laajoon nga xaw a sori tuuti ci sa sa sa base daal sa base muy Pikine xam nga foofu tu seras plus tranquille mën a focus ci làmb ji fu ngeen nekkoon waaw Babacar yéen a ngi woon Sénégal daal <laughs> si non ñoo ngi woon Lagros ah Lagros ngeen nekk Lagros lañ nekk nii nag mu doon bokkoon base di kon fu ngeen nekkoon est-ce que du buñ tourné benn angle bi rek gis kër Modou ñoo ah. dendewoon waaw kon daan ngeen séenante xanaa. entraînement sax dañ daan rombante. ah mais bien sûr mais loolu làmb la maanaam ci din yi noonu sa saabli ci géej ga. waaw entraînement sax gars yi dañ daan rombante. muy gisanteeg booy nag Modou séenante ciy bët. booy nag bi da wóoruma mais ñi ànd ak booy nag de xam naa ne Modou daana leen romb. xanaa booy nag daaw ca bokk. non damay ragal ne est-ce que ñooñu daawuñu njëkk a ñëw avant booy nag di agsi quoi. Hmm. waaw Modou daana Modou moom rombante naa gars yi lu bare bare. yan heure ngeen daan rombante ak Modou. man nag mosuma fa fekk mais gars yi dañ ma koy wax mosuma fa fekk mais xam waaw waaw mosuma fa fekk ay ay ay 4 heures. 4 heures du matin déedéet déedéet non non. 4 heures ci bëccëg waaw waaw. 4 heures waaw jëm 5 heures yooyu quoi. waaw gars yi daan nañ gisante waaw. gars yi bu ñu ko gisaan luñ lay indi luñ lay indil comme information ne la nii la adversaire bi mel. non non booba day fekk mu nekk ci otoom di romb lu ci bari quoi di romb moom it xam naa di dem fi muy entraîné. <laughs> mais bu rombee gars yi mbalagante xam nga tooñante. waaw dañ doon romb waxtaan avant. bien sûr mbalagante tooñante xam nga waaw waxtaan rek làmb la rek xam nga mënul génn làmb waaw. mais adversaire bi boo ma doon dikkal tey si Modou nga jàngatal ma Modou loo may defal si moom comme jàngat Modou ak tellement carrière bi mu entamé mu mel ni dafa entamé waat nouveau carrière ba ma waxee en tant que Kandji bi nga xam ne day seetaan làmb xam mbër xam sportif loo may wax. c'est un très grand champion. ça wax naa ko du dafa daan booy ñang démb samay interview yëpp balaa ma cee jeexal wala may commencer loolu ubbee c'est un très grand mu agsi ci làmb. fulla ak fayda ak jom moo ko fi indi parce que bi muy dugg tollu comme gars yi ni mu toll en plus c'était pas prévu que ne Modou Lo dina egsi fii ci làmb ndax dayoo ba la nit ñi doon diir mais dafa am fulla am fayda am jom am gëm-gëm ba pare dafa mën li muy def dafa mën a bëree dafa mën a bëree yàgg naa di ko wax soo ma saan dégg may faral souvent di wax ne dama xam Modou Lo dama xam Modou Lo parce que dama ko seetaan sax mbapat mu bëree hmm? bien sûr seetaan naa Modou Lo mbapat mu bëree Medina bi ko waaw wetu ginnaaw kër ñoom Gris Bordeaux ci station Total bi ci ginnaawam keroog bi mu daanee Serigne Diouf ba ci guddi gi mhm. moom ñoom Ousa 2 mbapat mi ñu bëre fii toog naa rek seetaan naa ko ba pare bi muy dugg ci làmb aussi premier combat fii la ñu fekk Dakar Modou ba ni mu bëreeg booy ñoom mos a bëreeg combat bu ma ump wala boo xamante ni seetaanu ma ko mhm. donc xam naa ko ndaanaan la maa ngi koy tiré un chapeau parce que ni mu termine carrière am nii c'était pas évident ni mu ko terminé. ni mu ko bëgg a terminé. waaw ni mu ko bëgg a terminé en beauté c'était pas c'est un sportif boo xamante ni boo ko xamee wala boo ko gisee tu sens que ne c'est un gars très constant dafa constant ci waa ci li muy def quoi en plus loolu c'est très important waaw ñu ngi koy tirer un chapeau di ko féliciter bu baax a baax a baax euh, di diggante Boy Niang ak Pikine parce que xam naa laaj bi sax mën nañ ko euh, kii mais nag duñ ko mën a bañ a laaj parce que démb dañoo gis loo xam ne ci biir làmb ja bi Boy Niang di tuus waa parcelle xam naa dañ doon ruubee am tour tur commencé tur yooxu turu ama loolu démb nu mu def ci yéen. mais déggoon nga ko contre Balla Gaye waaw kon amoon na loolu non mais yooyu amul problème mooy li ma la man làmb wallaahi aji man làmb duma ko jëlee ci yooyu parce que pataas moo ma daaxal pomme de terre loolu ku ci xuloo ak yow dalaa tooñ kenn ku ci nekk am nga droit xam nga faral wala làmb daal moom kenn ku ci nekk am nga droit def noo sentiré mais loolu contre Balla xam nga def nañ ko. mais teewul booy Niang daan Balla Gaye def nañ ko contre Modou Lo Modou Lo daan booy Niang mais du loolu mooy daan booy Niang wala moo koy may ndam de hmm, yooyu c'est loolu ay détails la te man duma ma focus ci ay détails hmm. non non non loolu ah waa parcelle ñu ànd ak Modou Lo bu leen neexee lool bu leen neexee kay ñu yuuxu amaayee mais loolu garaawul loolu garaawul li doon bon kay mooy nga ñëw waa Pikine di yuuxu Modou Lo waaw ah waaw waaw loolu moo doon xaw a garaaw nii tuuti daal ci gis-gis mais waa Pikine gis nañ ne ànd nañoo seen doom démb gunge ko waaw poussé ko vers la victoire mais yàlla suñu borom moo ko xañ tey boo amoon looy wax tamit mbëru Pikine yi lan lay doon en commence en commençant par Eumeu Sène Boy Niang Ama ak ñi ci suuf ñoom sox ak ñëpp loo leen di wax waa dama leen di ñaanal jàmm rek vraiment Eumeu Sène moom mention spéciale à lui di nuyu ñoom Ama Baldé sox parce que ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk seen Pikine bokk drapeau vert rouge bi du dëgg comme mënuñ ko séddoo nag gars yi nañ ko xaw a jéem bokk rek parce que lu dara xajul jarul ñu fay xaj-xajal dara ñoo bokk seen pikin ñoo bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. waa bokk ñoo bokk lépp te xam nga boo defee ci sa bopp ne doomu aadama mënul xañ doomu aadama dara rek après waaw mooy yàlla boo ko gëmee ba pare rek da koy wóolu wóolu gi mooy lu am rek alaa ku laan nga xam ne lii suñ borom moo ko namm moo ko dogal mooy lu am nga ne alhamdulilah sàq ma lakk na alhamdulilah xale ba judd na alhamdulilah diw génn àdduna alhamdulilah comme ni ko maam Thierno Ibrahima Faty daan defee parce que loo am yàlla la yàlla suñu borom mooy dogal mooy xool lu ko neex après mu def ko ci ku ko neex en plus làmb il faut dara que ñu ciy éviter di ñàkk ba pare di ñànki amul solo amul solo amul solo parce que da ngay ñëw ak ay ndam day neex mais bu neexee tey rek seentul ne suba dina naqari mais aussi bu naqaree ëllëg rek jàppale na jafe-jafe yooyu dund bu ëllëgee jàppandi moo ciy tege waaw bànneex quoi guddi lu mu lëndëm lëndëm ba après bët dina set. waaw il faut nit ñi aussi ñuy am conviction boobu man espoir man noonu laa koy gisee wax dëgg yàlla. dem bi nga gisee booy ñaa jooy loo yëg. ah waaw non sa xol day fees nag sa xol day fees parce que booy ñaa man sama rak du ay affaire ay supporter wala yooyu booy ñaa c'est un boo xamante nii xam nga dama ko xam parce que booy ñaa soo génnee li ñu ànd ci carrière am li ciy des du bëri booy ñaa parce que léegi ñu ànd 15 ans boo ko gisee après mu jooy da ngay xam ne am na lu ko metti mais c'est très normal parce que làmb ji daf ci sonn daf ci entraîner ba pare daf ci investir ba pare dafa jàppoon ne gëm aussi ne bu ñëwee dafa war a mën a daan Modou Lo ñun ñi àndoon ak moom aussi ñun aussi gëm-gëm boobu la ñu amoon léegi nag après boo ñëwee yàlla suñu borom def leneen déception dina am mais sportif la du du démb la njëkk a daanu après day jugaat takk dàll yi rek xam nga ñu xool li nga xamante ni peut-être xalaat nañ ne xaw na manqué mu gën a yokkaare xale la quoi te ay combat mi ngi ci kanamam waaw fi nekk nii ay combat ci kanamam kanamam koo fay teg kan booy na hmm. ah bëri nay adversaire de non mënuma lim nag kenn honnêtement baax ah. waaw mënuma lim kenn parce que man combat yi du man maa xëy tànn quoi da ngeen bëgg combat bu bees wala staff bi rek baal ma staff bi gars yi <laughs> waaw non staff bi mais fii dañuy waxtaan ndax combat bu bees bu ñëwee ngeen jël ah mais euh, que booy naa mooy métier waaw Boy Niang làmb mooy métier am donc euh, làmb rek lay def fi mu ne nii Boy Niang kay. damaa gis dem rëg-rëg samp ndënd. Hmm, waaw rëg maa ngi koy nuyu moom di ko encouragé moom champion la di nuyu Cheikh bu rëg rek moom sama waay la quoi. Cheikh sama waay mais rëg bu sampee ndënd c'est très normal champion la te moom aussi yegg na fi gars yi yegg. Siteu tamit gars yi ne nañ mu ngi fi. Siteu. ah mais Siteu est bëgg na booy Niang Siteu est-ce que moo xam nga digganteem ak Boy Niang lan moo tax duma ma ci bëgg di wax chaque mooy ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dama dégg sa version nga wax te ba ma ko déggee ba tey déggaatuma ñu wax leneen comprendre nga waaw. kon da nga jàpp ne boobu combat yaakaaroon mu mën a ne. noo waxuma munta nekk wala mën na nekk mais ñoom ñaar. dañoo wax loo xamante ni dama jàppoon ne seen combat mënul nekk. mais bi ma déggee loolu ba tey déggaatuma leneen. lu ñu waxoon. non dama dégg kenn ku ci nekk ne du ma njëkk a laaj. sama morom sama morom. boobaak léegi nag déggaatuma kenn taxaw. waaw daan na léegi bu ñu ma joxee sama morom ma bëre moo tax comme ñoom ñii acteurs yi ñoom ñoo am position boobu man mënumaa am beneen position bu dul ñoom waaw man damay man damay taxaw taxawaayu pël buy màngi rek ci ginnaaw nañ dem iyoo nañ toog iyoo rek waaw. am ngeen fi ay at tamit ay yu ngeen war a jël. comme. Lac de Guiers Fatim. waaw waaw yooyu yëpp combat la comme li ma la expliqué boo xamante ni parce que xam nga Boy moom dafa am staff. waaw dafa am staff yaakaar naa gars yi bu ñu ñëwee bu ñu waxtaanee ak staff bi ci adversaire bu ñu juboo rek après day takkaat daal yi rek. waaw continué waat entraînement yi ñu bokk waajal. Modou Lo Tapha Tine loo ci wax. waa Tapha moom vraiment il mérite actuellement nag bëree combat royal. waaw franchement mérité na ko parce que bokk na ci ci ñi ko njëkk moom tamit tenté contre Balla Gaye numéro 2 après bi mu ko tenté yàlla suñu borom nanguwul mais bi mu ci jugee ak léegi. aussi gis nañ jéego yu mu dox ci làmb waaw macha allah dox na ay jéego yu am am solo ci làmb donc moom aussi fii mu toll nii wax dëgg yàlla mérité na bëre combat royal waaw mérité na ko mérité na ko combat tafaatin Modou combat bu imposé wala bu jaadu sax macha allah waaw. bu jaadu ah mais bien sûr jaadu na bien sûr tafaatin tafaatin tafaatin fi mu ne nii ah man gisuma beneen adversaire am ah. gisuma ko waaw. gis mook at mook tafa waaw parce que ñoom dafa am foo xamante ni fa lañ fixé wu muy combat royal te Modou moo yor couronne bi waaw non Tafa àgg na foofu àgg na foofu Tafa mérité na largement bëre combat royal mm-hmm. te waa Bawol aussi gis naa ne soxla nañ couronne bi mm-hmm. waaw soxla nañ ko mm-hmm. am na solo Kandji kontaan ci yow donte tey nag waxtaan wi bon neex na macha allah mais itam dañuy comprendre xam nga. waaw mais voilà. voilà waaw xam nga am courage rek ñëw toog. ak dafet bii dem ni mu méttee ça veut dire que loolu maa ngi la ci remercier bu baax a baax a baax waaw waaw man nag moom Babacar sport moom wallaay man noonu laa koy dundee ndax yaakaar naa ke rek bi ñu daanee Balla Gaye ci bii nga ma jël ah, donc tey tey su fekkente ne tey dang ma tey danga ma woowoon bëgg ma jël mu xaw a jafe rek day xaw a waaw waaw day niru yàlla xam ne fàtte naa loolu sax waaw xam nga day xaw a niru leneen quoi sport mooy li may wax rek di gagner ci humilité di perdre ci dignité parce que booy Niang euh, ci li ko dese ci làmb ñaana lu ma ko ko mais làmb daal boo ci duggee boo daanoo tey ndax defet seentul na bu ëllëgee te mën ngaa jooyaan mm-hmm. wala boo jooyee ndax defet waaw seentul na bu ëllëgee parce que làmb moom ku ci yàgg daanu li ma Mansour Diop di wax ne ma keroog ba ko daam sugeer daanee nee na mu toog ci seen ëtt kër bi di jooy ba quatre heures du matin baayam alaaji Madiama jóob génnee ci néegam di waajal julli dégg muy yii di jooy mun ne kuy jooy noonu xanaa du Mansour nee na ñu ne ko Mansour la ko waaye tey mu ne ko ci guddi ba tey yaa ngi jooy ndax leen daam sugeer daan daan na ko xanaa gisoo sa mag jooju ci biir di alaaji Pape Diop jéeri Boston lim fi bëre bëre goo fi te daanu na ba soon sa dee ci door maam góor njaay sëtub maram jéen bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa ji